Abdou Moutalib ku leen a màggal yoneen Abdou Moutalib leen a màggal yoneen Abdou Moutalib leen a màggal mu dar su daale na wax leen su daale ay Maalik ay ak Xusaymata ak Mudirikata Iliyaas ak mama. Right. Siri, Iko. li Abdou Ndiaye bu kër Ibra Fall waxoon mu ni demande sociale nga <laughs> sëñ Dame Abdou Ndiaye nee na sa waay demande sociale la waaw <laughs> muccël ah waaw demande sociale la yàlla nga mucc أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير أسماء الله اسمه بركة وشفاء وبيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلائق بالإطلاق وجعل أمة سيدنا محمد خير أمة الحمد لله الذي جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كوكو موي سيد البشر كوكو موي بروا شفع المشفع قلب في المعصر تب الحلوب وضوائها نور الابصار وضيائها يننتبي موي خير القلائق بالاطلاح سيدنا محمد موي شفيع الوراء يوم الدفاع سيدنا محمد مي فاتح القاتم ورضي الله عن كبريت الأحمر تاج العارفين عارف صمداني ممد كل أولياء الرحمن كوكو مي سيدي أحمد التجان شريف رضي الله عنه وعنا به آمين وجزى الله عن جدنا ووالدينا ومربنا kookoy sunu wërsëg kookoy sunu saas kooku la nu yàlla booleel mooy Seydil Mujahid maami Cheikh Ahmed Dame maam Ahmadou Ndak yàlla na fayal ñu ko mbokki asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waxtaan wi du gudd damay def dama koy ubbi ñu xaar ba ñeenti fani tëbaski màkka tuubi i eh, ah samedi bi njëkk après tëbaski tey moom damay def damay ubbi rek li ma gàmmu tuube lépp njabeen ñoo ngi wax ngay ngay ñoo ngi wax waaye ba màkka tuubi insha allah samedi bi njëkk màkka tuubi mooy sama daayira <laughs> boobu moom sama daayira moom bopp la damay ubbil sëñ daam rek waaye ku bëgg a dégg gàmmu dëgg ñeenti samedi bi njëkk après tëbës tàkku saanu rasulullah tàkku saanu maam ahmadu ndak sa pénc mag ko tubee insha allah mbokk ñoo ngi sant borom bi lii bëgg yonent bi rek moo ko waral du leneen te ibnu muhayyab waxoon ni maa xalaa xubbuhu xalaa ibnu yëpp nee na lu bëgg yonent bi loola du dara maa xalaa xubbuhu lu amul cofeelu rasulullahi ibnu muhayyab nee na bàyyi ko njariñ nekku sa bokkul ak ni ku bëgg yonent waxul dem àjjana de dani da ngay dëkk ak Seydina Muhammad waxul ku bëgg yonent bi da ngay dem àjjana déedéet nit dina dem jana te du dëkk ak rasulullah bëgg Seydina Muhammad xam nga nga xeet ya jiitu woon am na ñuy dem àjjana seen yoon ak kër rasulullah waaye muhayyab ni bi xubbi rasulillahi cofeel gi yàlla dogal ñu am ko si jaddu Ousseynou Xasan maami Seexu Tiijaan mu ni cofeel ga bi xubbi rasulillahi narju si la nu yaakaare jiwaarahu dëkk Seydina Muhammad bokkul ak uiddu li ahwaalil xiyaamati xubbuhu ibnu Muhayyab nee yowmal qiyam dafa tar nungu na yowmal qiyam metti na nungu na yowmal qiyam critique na nungu na waaye waajal na boppam pour affronter loola ñu ne ko loo waajal sa bopp mu ni dama bëgg rasulullah uiddu ngi waajal sama bopp li ahwalil ayamati sa tiitaangi yowmal qiyam ñu ne ko looy waajal mu ni xubbuhu bëgg borom baraagu or ba njool Makka ak njool Madina bokkul ak wasilatuna yawmal qiyaamati xubbuhu nee na jàng naa islaam juróomi ponk la jullee nga sa ginnaaw seede ya woor ak asaka ak aj Makka nee bu ma si def doyuma sama li may wéeru du ma yóbbu julli teg ko ci kanamu yàlla mukk du yóbbu aj màkka teg ko ci kanamu yàlla mukk du ma yóbbu koor teg ko ci kanamu yàlla mukk waaye sama cofeel si rasulillahi laay jël teg ko sama diggante yàlla wasilatu na sama wéeru way wasilatu na la may ngoy wasilatu na fa may teg samay tànk ëllëg yowmal qiyaam yowmal qiyaamata ñu ne ko lan la mu ni bëggu rasul wa kullu muhibbin tànn maye géew la def day wax ba mu yàgg kii yedd yaa xam mu ne ku la neex bëggal loo am jël bàyyi maag njool màkk lu ma am jël fa kullu muhibbin fal habibu lahu xasbo mu ne moom bëgg na yonent bi waxkat ba ni koy ish maa chita fa innaka mayyitun nu la neex dundeel yaa xam waaw ya dee ngi ñëw wax ba man ci ta ku la neex ku la neex soppal ku la neex wax ba man ci ta anta mu faari da ngeen di tàqali ko ibnu mohayib ne ko kooku du Seydina Muhammad xam nga fu mu ko waxee fa yudrikuna ibnu mohayib mën a way fa yudrikuna فيدركنا إحسانه ñu ne ko kañ nga mu ni kaay ma tënkoon la ko xëy su ma kunna di ruugi wat ba keroog ngay dugg àjjana foofi toog tànk rek dajeeg baaxu yonent bi way wi la ba bañ indi ruugi génn ak xataayu bàmmeel ak taxawaayu yomal xiyaam ak jot téere peesa jëf ya xaarama tënkal la ko yow mi bëgg yonent bi bu fay yudduriku naa di jot ihsaanahu mbaaxuk yonent yàlla muhammad xëy suma kun naa étape boo nekk kon bëgg yonent bi wóor muhayyib ni malaktu bihi qalbi sëñ daam ibnu muhayyib nee na داني ملت به قلبي وعيني ومذبحي بوك بجي ديغنيل ملت به عيني ملت به مذبحي وملت به قلبي ابن مهيب نانا بو قوتي سما خول لو ياكارني دين كو سا فك كودول جيم رسول الله امول خول بي نول ماك رك ملت به قلبي ibnu muhayyab neena du bay du yaay du jeuker du jabar kuma beug sama xol fess na del ak rasulullah dara dara xajus wayni ibnu muhayyab neena luma xol mu tut lu rasulullah luma xol mu ndaw ndol ma kere lay xol yegni xol da nit wa mazma'i ibnu muhayyab nee du ma dégg lenn mu saf ma lu dul baatu rasulullahi wala waxtaane Seydina Muhammad ba mu yàgg moo ne bi sama xol feeseeg njool màkk bët yi gisul ku dul Muhammad nopp yi digluwul ku dul Muhammad xam nga lu may julal wa addaytuhu bi zikri fa huwa bihi maay ibnu moo yëpp yàlla dimbaliwu ko mu aji màkk mais nee na billahi pertuma gaa yooyu dagg bile biee dem di gis rawdu ba man damay toog ne Muhammad wa at naytuhu bëgg a jege ibnu Mayib nee duma dem damay toog wa at naytu bi zikri di ko tudd rek Muhammad Muhammad Seydina Muhammad ba mu yàgg njool màkka ni muuréet jàkkaarloog ibnu Muhayyab mu ne wa at naytuhu bi zikri fa huwa bihi ma'i am na faneen fu wax naan walil qalbi fi taskaari waslun mujaddad ibnu may ba sañ ngeen baal ma nag damay cuqat de <laughs> waaw sëñ mu ne walil xal bi fi taskaari waslun booy firi bayti mu commencé jaar wa majurur boo ko bëggee dégg baal jaar wa majurur dem dama def retour indi jaar ak majurur walil xal neel fi taskaari tudd gi ma koy tudd waslun mujaddid mooy yeesal ñu ne ko lu muy yeesal mu ne lil xal bi ñeel xol walil xal bi fii taskaari waslun mujaddad sëñ daam ibnu muhayyab ni huwal amalul aqsa wa usulu والمنى نل هو هو الامل الاقصى رسول الله هو السؤل رسول الله هو المنى رسول الله هو الامل الاقصى هو السؤل والمنى ويكو توتي رك ويكو توتي رك ما دم نيوات هو الامل الاقصى مني li ngay toog naan man de bëgg na maa dem Europe bëgg na maa am kër bëgg na maa am oto di mbébét di xalaat bëgg na maa am ibnu may nee na musa mbébét lu dul am Seydina Muhammad huwal amalul axsa mu ni mbébét bi nit waru ko am yaakaar ko mooy Seydina Muhammad huwa sawlu almuna huwa sawlu ibnu muhayyab nee na fàttalikuwul fu mu tàllale loxo ñaan yàlla dara li muy ñaan yàlla mooy yàlla naa am Seydina Muhammad waaye wal muna nee na mus sa ñaan yàlla alal ndax daa gëm ni xéewal mooy yonent bi mu ne huwal amalul axsa mbébét mu kawe rasul waxan saaroo ku ziyaari Seydina Muhammad salaaw mu ne ku ziyaari yonent bi yaxfiru zanbo musta yàlla jéggal la say bakkaar waaye yal na ngeen siyaari Seydina Muhammad yal na ngeen siyaari borom barago wala waaye yal na ngeen laabay kaw sa Kaaba ga yal na ngeen wër Kaaba ga waaye yal na ngeen dox sa suufu si Makka faasa ba tax faasa man la wa taaba في ذاك ترابي حزاره وإن كنت لم نبلغ أخي دياره قد فادم لبى مستوى وتاب وتاب وضاره ومرق في ذاك تراب عساره كند رسول الله sama nijaay mu ma maxtaar boo ko bëggee dégg ibnu may dani la xad faasa man laba wa taafa wa zaarahu wa marra da nga naan la xad faasa man laba la xad faasa man laba رسول الله waaw ñu yàlla ba tey ba tey ngi nuyu ñëpp eh, yàlla ba tey ba déwén yàlla ba tey ba déwén rek le samedi Makka Toubé incha allah waaw yàlla yàlla Cheikh Ahmed ñoo ngi nuyu ñoo ngi lay nuyu Seck Mori yàlla na yàlla sàmm la Mouhamad. yàlla xam na ko démb da dañuy waxtaan si yow moom yàgg mu ni ma ba xam nga ni sëñ daam dalaa bàyyi xel ma ne ko xam naa ko démb rek bi ni añ mun ma sëñ daam ku la bàyyi xel ma ne ko sëñ daam bëtam jiggi na ma am na keneen ku muy xool si man ku dul man sekk yàlla na yàlla sàmm na xam nañu fi ñu teg sa jotaayu tey dafa taaral bis bi da koo jëmmal sekk yàlla na fi yàgg Baye Mor ñoo ngi lay nuyu Samba wat ñoo ngi nuyu assalamu alaykum wa rahmatullah. faté abonné ci sen YouTube. samsu TV jant bi léral aduna té activer cloche de notification boobee ngeen di sen ci sen écran. abonné dafa mhm. fi abonné da nga abonné wu ci bi abonné ci te ci dara naan ci TV ci daara ji bisam su tiivi la nuy bégee ba aljana ay waay di ko bégee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana di ko bégee